mooy indi tey yan souvenir nga mën a fàttali seen diggante yéen ñaar. et que Idrissa Diallo nekkoon na jëmm ju yiw jëmm ju dal jëmm ju xam boppam jëmm ju am kóllëre ku fonkoon kóllëre jëmm ju baax di jullite kooku tey ji moom la ñu ñàkk xarit bi soppe bi àndandoo bi jëmm ju dëggu te dëggal fu mu jëm yàlla na ko gënal yiw yàlla yàlla na tasante yërmande yàlla si borom yàlla na ko yàlla xare aljanna firdawsi ku baax ku yiw ku tabe ku sawar ku am warma ku fonk àndandoo eh, ku amoon yërmande aussi ndax commune bi mu nekkoon di Dalifort seere yi benn la Idrissa Diallo daal ku baax loo woon et jamono bii bateau le Joola di sooxit taxawaayam ñëpp gisoon nañu naam ñàkk na ci njabootam waaye taxaw ga mu taxawoon weesu na njabootu boppam ngir yërmande ak yaatoom ak julliteem lépp lu mu jëf lu baax ak lu nit ku baax jëf ci lu baax tey lu baax yàlla na ko yàlla fay fa mu jëm yàlla na yeewoo aljana firdawsi yéeneem ak bëgg-bëggam yi mu amoon yëpp yàlla na ko suñu borom mottali fii ci kaw suuf demam nag mën nañ ci jàng lu bëree bëri mën nañ ci jàng jub mën nañ ci jàng àndandoo mën nañ ci jàng amuwaay mën nañ ci jàng aussi dëgg ak dëggu ak kóllëre ku fonkoon kóllëre yàlla na tasanteeg Seydina Mouhamadou waaw Idrissa doon suñu xarit dëkkandoo lañu parce que ku xam Dalifort Hann Bel-Air xam ne benn commune la mais Idrissa donn koo xamante ne ñoo bokk langue politique bokk coalition ànd di liggéey Idrissa doon surtout en tout cas un homme de conviction la mu gëm daf ci nekk ba jeex takk quelqu'un de désintéressé parce que ay conviction gëm-gëmam la mës sa jiital de telle sorte que mun naa ne c'était le citoyen modèle alors euh, nekkoon na aussi nit koo xamante ne lu ñu miin miin miin Idy était de très serein xamul caaxaan xamul fo donc euh, tey li am ni dafay loo xamante ne Sénégal yëpp dañu ñëw pour témoigner loolu kilifa yàgg gën a génn àdduna mais mobilisation bu mel nii Idrissa moo amoon cette relation vraiment ak ñëpp moo tax dañ koy ñaanal yàlla yàlla jégal ko vraiment na doon këram. Lo dafa nekk nit ku nga xam ne nit ku baax la woon nit ku bëgg réewam euh, xaman ñëpp xamoon dañ ko biir Sénégal depuis bateau le Joola ak taxawaay bi mu ci amoon te mu ñàkkoon ci ay njabootam waaye ñun ñu ko gën a miin surtout bi ñu bokkee ci délégation Sénégal bi war a dem euh, CIP UMOA te ñu doon euh, ànd di wër Sénégal di wër Afrique de l'Ouest di waxtaan ak ak suñu mbokku député yi nekk sous région bi mu nekk nit ku baax. nit ku jub nit ku am ay principe mu nekkoon Khalifa Sall te nëbbu ko woon ñun ñu farak président Macky Sall aussi te ñu ko woon mais loolu taxul woon suñu diggante suñu diggante ñagas taxul woon suñu diggante eh, eh, yàqu mu nekk nit ku nga xam ne daal nit ku baax la yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaaree ajana ñu ngi koy jaalee waa Casamance ñu ngi jaale jaalee waa Dalifort ñu ngi koy jaalee waa Kër xalifa Sall ñu ngi jaale waa Sénégal yëpp te di ñaan eh, yàlla xaaree ko